jërë ngeen jëf mbokk internautes yi ñoo ngi leen nuyu bu baax a baax di leen ziare te nag ñoo ngi fii five club seet si ki nga xamante ne mooy moom mooy Bass Thioung petit production tëgg combat dimanche le 20 incha allahu rabbi arène national combat bébé bismi ak ki nga xamante ne moom mooy Siteu bu Ngor ah lambu xale la comme ni ko gars yi di wax rek làmb xale musique xale mm. mu jël drapeau bu noonu fas yéene ci delloo njukkal gi nga xamante ne moom mooy Bass Thioung mm. Bass Thioung bi xew ci jamono moom lañ tuddee drapeau bi dimanche la le 20 ci incha allahu rab ci arène fekk nañ ko nag mu nekk ci liggéey bi di répété xam nga lan xam lu muy répété pour pour la mm. xam nga pour coupe du monde bi la xam nga pour lan waaye ak lu mën a xew am nañu te ci dalal bi nga xamante ne dalal nañu ko fii ci bërëbu liggéeyukaayam ñu war a waxtaan ak moom ci dara drapeau bu noonu ban yëg-yëg la ci am ak lay wax ni nga xamante ne ñoom ñooy ñaari mbëri di nuyu tamit LP bu mu war a ñëw le 31 décembre moom tamit ci booy euh, doomu jàmm gën ak fëgala bu ngoro waaw waxtaan bi kan laa koy commencé bàyyi ma nuyu Petit. waaw nuyu Petit Petit promoteur. ah nee na nee na bàyyi ma ñëw ci yow rek. waaw bu baax a baax di la ziar Bass bàyyi la nga nuyu mbokk internet di jàkkaarloo. waaw Lamine maa ngi lay fay di la ziar kontaan ci lii. di bëggee ñëpp waaw di bëggee Sénégal ñëpp bàyyiwuma kenn képp ku ñuy seetaan rek internet yëpp maa ngi si ñëpp bàyyiwuma kenn waaw bëggee naa leen daal waaw waaw salaam. mais bés ah, man maa yàq yaay Baba Diagne nongo fari mata waaw sama maam moo njëkk a fay un million ci làmb Basirou Diagne oh. waaw. lamb dama ci ah, mais man su ma koy dégg combat sax su ma neexee mu neex kay déggoo ma xanaa déggoo ma Bassirou Diaye moo sax maam kay ñi seeraan tey li mu def ci lamb hmm. waaw di ko ñaanal fu mu tëdd gënal fu mu jugee lamb di ci bokk lamb mooy suñu cosaan aussi hmm. ah mais bu baax ma nekkul amateur lamb rek espagnol nga dëgg du neex kon dimanche su deful dara mais bu baax man damay suivre lamb waaw mun naa la tëgal ay lamb yu neex sax. Ah. heure boo mu seet sama jox la ay lamb ay combat yu garaaw. mooy loolu. dama koy denc ba beneen yoon. <laughs> mooy loolu waxtaanee ko. Petit Production. <laughs> sa bi jël benn combat. Mm-hmm. parce que fas dimanche. dëgg la arène war dox ci diggante Bébé Bismi ak mm-hmm. Siteu bu Ngor ban yëg nga am. mais di kontaan loolu dama si kontaan bu baax. dafa def lu euh, maa moom alal lalu ko dara lalu ko. Mm-hmm. moom lu ma soxla ci moom dama koy am. te lu mu soxla ci man da am. te loolay ànd moom sans mu tuddee ma drapeau moom lu mu mus a nekk ñun dañ ciy nekk. te man lu ma mus da ciy nekk. kon nag bu demee ba def lii da ko def rek ndax rafet xool ndax baax rek. waaye def ko pour dara. te nag man ni dama si kontaanaat ba ma wax ma ko dama si kontaan. parce que nit amoon lu dul bësam. Mm-hmm. te nit kenn ko xeebal bësam. Mm-hmm. di bëggee aussi Modou Mbaye. Mm-hmm. foog ma wax ci loolu. Modou mbay man du ma woo mukk wala kenn si jege ko du ma du ma jot. parce que mukk àdduna nekkoon ci benn liggéey. affaire coupe du monde yaa ma gën a xam. xam nga man ma ma amee sax ne petit pour mu ñëw mooy loolu démb laa xam ay yenn affaire yi ma waroon mën a gérer quoi. Modou Mbaye maa ngi koy bëggee sama frère. di bëggee tamit suñu papa Bekaay mbay parce que Modou Baye Fall la sama waay rek ñu yàggul loolu. moom it xam nga lu mu soxla ci man rek moom la neex da koy am man lu ma soxla ci moom dama koy am la mën a mhm. si ko mhm. parce que nag mooy li ma wax rek man doomu mhm. ma yëg rek ma yëg ah moom li mu def nii amaan xaw ma tuut na ci moom mais tuutul ci man waaw dañ ci war lu ñu war incha allah parce que nag moom daa baax rek mooy borom bambay moom nee naa ko yaa yëngal fii waaw yaa yëngal fee moteur waaw moo ko nekk LP ñaari mbër yi war a bëri sa drapeau tamit lan nga leen wax ndax ñaari mbër la yoo ne ku ci nekk sa gox daf laa gëm mhm. Cameroun ñu ngi waajal fas yéene nekk ci ginnaaw bébé bis mi waaye ku def open press bébé euh, Siteu bu Ngor démb xam ni waa Ngor combat dañ ko téye ak seen ñaari loxo lan nga leen di wax surtout ci ñëw tamit def fair play waaw di ñaan yàlla affaire yi am si jaamu jeex si jaamu rek mhm. ndax euh, lépp Sénégal la mhm. di wax lépp askanu lébu la man nit lébu laa ci ndey di lébu ci bàyyi Siteu aussi sama waay la. waaw ah, loolu. bébé bis mi tamit lébu la de. loolu waaw ah, mais dégg nga mu ne lépp leenaa la. parce que Cambérène Ngor Yoff Wakaam lépp benn la. dégg ma ne di affaire am si jàmm jeer si jàmm mm. drapeau bi na dañ ma ko tuddee yàlla na yàlla def lépp am ci jàmm ak salaam yëpp mm. yegg si jàmm ak salaam mm. ndax tey jii man si da ba ñuy xamante bëreegul sax ak yàgg na mu doon nit koo xamante ne sama waay la deret la du affaire de sax ay mbër ak ay artistes affaire yooyu noonu comprendre nga waaw maa ngi koy bégee bu baax baax di bégee ngor tamit mafia bi foofu ñëpp parce que ñoom li may def dañ ciy saf sap mm. lu may def dañ ciy sonn mm-hmm. nit ku nekk tamit góor rek nga mën a doon mm-hmm. booy wax waxal li am mais di ñaanal yàlla lépp am si jàmm jeex ndax lépp Sénégal la lépp Sénégal la ñaan nañ yàlla combat bi am si jàmm jeex si xam nga lépp daal daal daal daal lañ ànd si fair play rek man loolu laay ñaan a taxaw ci bés bi waaw taxawaay ku ñu tuddee ku ñëw fet si si frère am hmm. ku ñëw tey jii war a frère am war a am bés mu ñëw taxaw sans dara bon sans hmm. bu defee bés ñun dañ mën dañ ko siy def hmm. ndax moom dañuy waxtaan lu ne ci àddina mu ngi ni taxaw am na loo xamante ne mooy li mu rek man nit du am besoin mu ko ma koy xeebal. Mhm. nga yëg ma def sa yëfu woo ma téléphone wala tax yëgal ma. non dama lay wuyu si. Mhm. waxtuma laa nga jël drapeau sax tuddee ma. doomu mhm. góor laa nag. te incha allah dina xam ne tuddee nu ko góor tuddee nu ko tamit ku ku ku am yëg-yëg ci nit. waaw loolu laa mën a wax daal waaw amuñu dara mënuñu dara. waaye tuddee na ko doomu réew mi li nga wax rek laay delloo. kan mooy sa mbër ba. <laughs> dégg naa Fass man. en tout cas daal yàlla yàlla defal jàmm quoi yow mooy loolu. dégg naa Fass man bu mag. <laughs> ma ne yàlla yàlla defal jàmm. xam nga tey jii yàlla dafa def benn affaire ah Bastion nekkatul Bastion HLM ah. laa juddoo nekkatul sax Bastion HLM kase HLM mooy sama base mooy sama zone moom laa juddoo mooy sama lépp bi mhm. ma am fa laa jiitoo aw ma lu ko ëpp mais dama ne tey jii nii fépp foo dugg Sénégal am na ñu ma léegi man su ma toxee tey ji ne Lamine lii fekk Lamine sax ay mbokkam ñëpp ma bëgg kon man waruma tollu ma foofu man dama tol luy war a boole luy war a defar luy war a àndaloo ñëpp combat bi bu ñoom ñaari mbër yëpp war nañu ànd ñëw sama soirée bal si ah yeneen combat yeneen ak yeneen ak yeneen man Sénégal daal yaa fi nekkal yàlla ñëpp ah. lu fi am daal mooy loolu parce que man gaañu man gaañu ñëpp laa man ñëpp samay waay lañ ah. parce que mel di ñaan yàlla xam nga mbir bi yegg si jàmm parce que petit moom borom baax la combat bi nag gars yi ñëw sañ sa ba rafet ñëw supporter mu neex stade bi yëngu xam nga. gars yi mooy loolu. après waaw mais lool par force la. loolu day yëngu foofu waaye yëfu lébu lébu yi dañ mun dañ mun sot. bu ñëw rek nga feesal stade. non mais ay sax. waaw ah, ah, Luc Daour Luc Daour mooy suñu maam. Luc Daour mooy sama petit petit bëgg nañ la bu baax di jaarale. wala man fay naa ginnaaw ma sant yàlla ma sama ñaaw sant sama sëñ mi xam nga di nuyu subetel bi yëpp daal ñëpp ñuy dund musique Sénégal di nuyu mbokki àdduna mbokki Sénégal. Mhm. Mhm. aywa lan nga wax ci la ñun ñëpp ay frère la ñun ñëpp benn lan ay yoon la tey moom bu xewlee duñuy dem bu ñu xewlee dafa war a ñëw muy lu rafet loo xam ne tamit bu ma ko waxee tegu ci baat mhm. si tam nga di mbërëm bébé bi tamit di waayam mais lépp Sénégal la parce que ñun tamit ku ne am nga droit far fu la neex mais lépp Sénégal la dañuy koy ñaan yàlla suñu borom ñu lu ñoom mooy bés bi rafet. lépp jekk parce que am na lu bëri lu ñu war a innover bés le 20 naa la ko tey si bëccëg foog ma laajaat la ko ci kanamam lan. Bass Thioung benn jeune la boo ne xam ne tey Sénégal ku ku wax artiste wax Bass Thioung ku wax ambiance wax Bass Thioung te xale yi bëri tamit ay ay xale xam dugg nañ ci làmb yeeguñu dugg si làmb Lamine wax mm-hmm. combat may ko ku bëri combat mm-hmm. kon am na lu tax tey ngay bëri kooku mais bu ñu waxee ambiance Bass bu demee tey bu ko ñu ngi ko ñaanal Sénégal jël ko Qatar jël ko pour affaire coupe du monde donc koy ñaanal mm-hmm. kon liggéey moo toll foofu ton ndaw ñëpp da nga woot na Bambey sama directeur Omar Sow woo ko Bambey ma fekk ko Bambey kon sama diggante moom du Dakar kese te chaque jour koy woo ñuy waxtaan ci yoo xam ne ay affaire adduna la parce que ñun ñëpp benn lañu te moom tamit nit ku baax la Baye Fall la ay nit dañuy toog di ko seeral ci moom lu rafet ku ci mel ni sama Ndour Touba sa xarit. keneen ak keneen xam nga lu sama maa ngoy siyaar bu baax xam nga kenn ak keneen di wax ci moom lu baax ñoom Sibooru Faye ñëpp stafam ñëpp di wax ci moom lu baax sama frère la xam nga lu ah. di woo Sénégal gépp di wax ne dimanche bés bés bu mag la ci làmb. te samedi am na lu xew. te samedi damay innové te samedi est-ce que parce que ñoo yëngal sax ñu xool ah. voilà xam nga lu lu mën a xew xam ne làmb laa woote jàmm laa woote ambiance te ba du ambiance la ah. ambiance la moo tax bésam il faut ñu ambiance mm-hmm. di ci woo artistes yëpp di ci woo Sénégal gépp di ci woo àdduna bés baa ni daal bésu bas la teg na ko ci loxoom ànd mm. naa ci sama staff ñëpp na ñoom LP Events gars yi borom le 31 décembre sama frère la moo ñëw suñ pare le dimanche incha allah doon koy songu sotle ko parce que yëkkati yat sax dóor sot lépp lu mën ko def mm-hmm. Mm-hmm. macha allah loolu am na solo mais bas bu ma jeexal ak yow mooy bi nga déggee sànq xaw ma dégg euh, bi du ci mën a football information bi jàll na sànq moom ñi ñi ñi ngi muñ ñu mën a jooy ñu ngi jooy. ah du ñu jooy mais xol neexul de te xol tooyul ah Sadio Mané du football moom loolu moom. nekk na lu garaaw. mais nag aussi yàlla lii la dogal. léegi nag li si des leen la mooy ñi fi ne tamit ay jour lañ ay jour lañ ñu tamit jël tamit xam nga boole li Sadio doon def ak gëm ko quoi. parce que na lu mënul nekk amul. Sadio amoon na xolu tey jii indi Sénégal lu coupe du monde. mais yàlla lii la dogal. léegi nag ñi fi nekk tamit bu ñu doxalee xam ne dañ leen sous-estimer parce que ñi si des dañu am dañ leen gëmloo ne ñoom tey jii war nañ ko mën a def mm-hmm. ndax instant yi solution amul li fi nekk lii moo fi ne mm-hmm. lii bu fi nekkee nag dañuy xam ne ñoom ñoo ko war a def mm-hmm. ñoom lu war a def nañ xam ne ñoom kase kase kase war nañ ko mën a def waaw mais amul leneen di béggee di béggee ñëpp di ñaan yàlla tamit xam nga ñu mën bi ñu am si lépp loo xam ne mooy lool su dee bu ngor moom ku xam na ni sama waay la kon pression bi mujjee dama dem ndax kooku mooy li ma la rek dañ sekk loo xamante ni deret la mm-hmm. loolu du ma ko nëbb kenn te ñëpp xam nañ ko waaw loolu loolu loolu mooy seul mbër bu musa dem open press Siteu lu may def si siy sonn Siteu bu Ngor lu may def da siy sonn waa Ngor itam lu may def suma wootee woon fenn léegi nee leen fii la ñoom ñëpp dañuy def mobilisation ñëw kon nag euh, nee nañ nit da ngay dëggu da ngay gore nit lam la jox delloo ko man noonu laay dundee Siteu moom yàlla na ko yàlla defal jàmm Siteu bu ngor moom moom dama ko bëgg dul dëgg loolu Siteu moom yàlla na ko yàlla defal jàmm quoi bu baax a baax eh, eh. Eh, Lamine waaw bi ni mu neexee ngay wax ay LPL waaw LPL si yokk donc ginnaaw bi ñu sant yàlla julli si yéen di sant suñu ñaar waajur bu baax a baax di nuyu kilifa diine bépp kilifa aada di di ziar tamit bu baax a baax presse ñëpp. dam contentement fierté bu baax a baax. drapeau Bastung parce que Bastung moom petit bu defee tout tuddee drapeau Bastung def na lu ko war. parce que ñoom ñaar démb la tey soog a ñëw. donc affaire du du xaalis du dara maanaam yëg-yëg la ak xol bi. parce que drapeau daanaka ñu bàyyi ñëpp ñëw tuddee lu ko nga xam ne am na benn relation bu jot am seen diggante quoi. donc loolu noonu dañ koy rafetlu bu baax a baax di wax ni bés dina neex dina yàgg incha allah parce que ay xale ñoo koy bëgg rek xale moo ko tëgg. te xale lañ ko tuddee muy Bastung mu doon le king daanaka monde entier ñëpp du ko béggee comme bés bi daanaka ku teelu ñëw doo am place comme midi deen tijji stade bi gars yëpp ñëw billets instant disponible nañ na gars yëpp ñëw teewee lool noonu incha allah tamit ñoo xam du am euh, bu baax baax jox tam gars yi rendez-vous 31 décembre bésu LP events la mm. arène nationale diggante doomu jaamu gan ak fëgala bu ngor jërëjëf jaajëf merci woo ñëpp kontaan ci allah si commencé fi ma fekk tey may répété sama waa équipe sama label suba teel musique di commencé si Matar waaw di ko jowoo ci bés bi. di hmm. woo Iba Sey. Seyri Deko di ci woo tey jii képp ki nga xamante ne mi ngi bëggee Bastum Barxaan Diop Aziz Diouf prési di bëggee daal ñi nga xamante ni ñu ngi sonn si Bastum di woo mafia bi ñëpp bàyyiwuma kenn Zé Maxli gaa yëpp Tafa gaa yëpp di woo tamit xam nga comme ni nga fiy fekk rek yaa ngi naan sànq ndax ndax répétition la. Hmm. parce que moom foo nee rek gaa yi dañuy ñëw teewe la affaire yi bu baax a baax di ci woo daal bàyyiwuma kenn di bëggee tamit Omar Sow. waaw di ko ñaanal jàmm Serigne Ndeye Sow yàlla defal ko tawfiix yàlla defal ko jàmm Omar Sow yàlla na ko yàlla taxaw yàlla na ko yàlla defal jàmm maa ngi koy béggee bu baax a baax bàyyiwuma kenn daal woo naa ñëpp woo naa di woo Maria Sine mbay sa biigee di woo di woo ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñii samay nit sa liggéey ak ñëpp maa ngi béggee ñëpp allah waaw di woo tamit sama Ibro gars Siri gars yëpp bàyyiwuma kenn yaay di nuyu Bass Thioung mon ami mon frère di nuyu kan petit promoteur le jeune promoteur ak kan mon ami LP maa ngi leen jox rendez-vous tamit aussi quoi le 20 novembre dimanche incha allah fële ci arène nationale. di wax ga yi na ñëpp ñëw ñu def ko ci fair play def ko ci jàmm ak salaam ak euh, ñëw gu rafet ñibbi gu rafet nañ ko def nañ def suñu xol yëpp que ni sport moo ñu fa andi tey nu mu demee rek après ku ne li la yàlla jox rek nga ñibbeeg moom. waaw tey ñu woote li tax ñu neex a wuyu si mooy dañu di ay ndaw xam nga tey boo oyofee ñëpp mun naa boo diisee ñëpp teg la fa woote dañoo oyof nag mu eh, invité mu invité ji nag ku oyof muy Bastion ah. koo xam ne amul benn problème ah, king ambiance boo nee ambiance rek gars yi seen xel ci bas la ñuy dem waaw ñu di ko ñaanal moom itam yàlla gën koo jàppale ci li mu bëgg matale ko ay projet ndax nit ku baax vraiment gars nañ teew dimanche incha